arbitre bi ngi laaj ay consultant am arbitre bi sifflé na mbokk yi safal 2S TV wala 2 rek la def 2S nag bi ñu xam télé la 2 moo nekk Ikiri kaay baax safal nekk Ikiri bawal ndaysaan safal 2S safal cokkaas na safal cokkaas ndaysaan safal 2S ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo ndaysaan 2S jiital tànk càmmoñ safal jiital tànk ndijoor ndaysaan jokaasaat na safal 2S écurie Gaye Bakh ak écurie Bawol safal 2 ma ngay jokkaas dañoo fas yéene bëgg a xeex ñoom ñaari xale yi fu ñuy mujj safal 2S ndaysaan safal 2S safal ma ngay door ci suuf ma ngay door 2 daa bëgg a safal bañ na fàqat lu nar xew Ardo waaw waaw waaw waaw waaw waaw Ardo moom safal safal ang koy xaaraat ba tey arbi bi safal 2S moo tent bopp bi féete leen di joor safar féete la càmmoñ 2S dem na arda dellu si waat nan la fas yéene góorgóorlu ci combat bi ba génn ci walla déet ndaysaan bëre baaxu góor la yi ay jàmbaar lañ xale yi ay garmi lañ 2 ngay cokkaas xale yi ay borom fit lañ xale yaa ngay xeex gàllaaj yaa ngay dagg lu nar a xew gàllaaj ya dagg na arbitre baa ngay atte demaatal ardo mbaa combat bi du mujjee jeex 2 mbaa làmb ji du mujjee jeex mbaa du mujjee jeex. ñu tuusal benn dugub wax ci tribune bi. waaye suba. incha fii ci stadium bi prési production moo fi ñëw. ci combat bu neex a neex a neex diggante ñaari xale yoo xamante ni bu nu mu neex bu nu xeexee mu tàng bu nu fettee sax mu neex muy xale boobu ñuy wax bébé jëlu ah ak xale bi nga xamante ni moom la de maire numéro 2. nag muy drapeau sargal ministre Mor ministre conseiller du président de la république monsieur Macky Sall. waaye dina am tamit combat spécial bu neex buy dox si diggante Ndow bu écurie Songane ak capitaine bu écurie Bada boobu nag mooy drapeau Abdou grand commerçant fii ci marché loolu suba doon incha waaye Bour Sine numéro 2 dana ci daje ak doomu diin Saa dana ci daje ak Abawa Moussa Guy dana ci daje ak Bas 2 Thiély numéro 2 dana ci daje ak Barabara waaye xale boobu ñu wax armée numéro dana ci daje ak Salmon Faye carrière numéro 2 dana ci daje ak Boy Ndiambour Fally dana ci daje ak. Cey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 ndaysaan combat bi mbaa du mujjee arbitre bi jox na safal victoire bi adversaire bi mënatul bëre waaw daan na ko